tuumalee lu jëm ci wàllum viol maanaam ñetti fan ci la toll ndax nee nañu bi ñu nu suubala tabaski la ko Sitor Ndour jëla la jël xale bu jigéen bi maanaam jàppe ko mbindal andi ko ci këram ngir mu yoral koy xaleem waaye tamit xoolal ko soxnaam si nga xam ne maanaam xel la waaye nag bi ñu tabaskee ba suba si la ñu wax ne moom Sitor Ndour ci la yegg ci kaw xale bu jigéen bi yaayu xale bu jigéen bi mooy nettali journal bi nee na xale bu bi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la Sitor Ndour jëloon ci këram ngir mu ko liggéeyal fukki at ak juróom benn laama nee nañu 45000 francs la ñu waxante woon ba déggoo ngir weer wi yéene kaay gi nee na li nga xam ne nag ñooy famille bi ñoom yor nañu ab certificat médical buy firndeel ne Sitor Ndour dafa yegg ci kaw xale bi waaye tamit yor nañu ab audio boo xam ne Sitor Ndour moo si doon wax ngir nag bëgg ñu fay coow li journal bi nee na gendarmerie bu Foire foofee la porte plainte gendarme yi enquêteurs bi ñu ñëwee ci kër Sitor Ndour maanaam ci bi nga xam ne fi la xale bu jigéen bi wax ne fa la ko tëddee gis nañu fa nga xam ne mooy sperme waaye nga xam ne mooy darab ba maanaam darab ba moom la ñu njort ne moom la ñu tëddoon gendarme yi jël nga xam ne nag mooy Sitor ko laaj laajee nee na mbir mi du ci wax ndax ma nga ca kanamu yoona nee na ay nit ñoo jóg bëgg ko yàq bëgg wut si moom xaalis yéen kay gi de Les Échos nee na Sitor jamono ji nag jommi ndax convoqué nañ ko te ba muy tuulee maanaam musiba bu kumba rëy dina ko dala yéen kay gi de xëy di ko dëgg la yéen kay gi di Rewmi Quotidien nee na am na benn sage-femme boo xam ne ma nga ci centre de santé Philippe Maguilène Senghor moom nag daat nay confirmé na ne ki nga xam ne mooy xale bu bi yegg nañu ci koom yéen kay gi la ñu génn yéene gi nee na Macky bu dee am na lenn loo xam ne moo ko rey ci élection yi mooy ñi nga xam ne ay transhumant lañu ndax Macky Sall ginnaaw élection locale yi bëri ay maire bëri ay responsable yoo xam ne ñoo ngi ku jigi ñooñu ñëpp Macky Sall di leen a jëloon ci wetam maanaam ay transhumant transhumant yooyee journal bi nee na moo sànq Macky Sall ndax ñi nga xam ne ñoo dawoon ci opposition bi dem fekke Macky Sall gox yi nga xam waa Benno Bokk Yaakaar journal bi nee na nga xam ne moo cher ba jéggi bokk na ci ndax dund nag dafa cher ba maara day tale Sénégal dañoo sonn ginnaaw loolee tamit ñi nga xam ne ñooy transhumant yi ndax Sénégal yi ci maanaam dañoo jàpp dañoo jéppi lool ñi nga xam ne ñooy dem di transhumant waaye tamit ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi loolee tax na askanu Sénégal ñu opposé ñoom daal di génn ki nga xam ne mooy ma ngi yedd Macky Sall a entourage Macky Sall dafa war a xool maanaam entourage daf ko war a defaraat yéen a kaay gi de Le Quotidien nee bokk yaakaar ak yeewi wàllu ba léegi ñoo ngi xëccoo majorité bi ndax kenn ku nekk maa wax ne moo am majorité yéen a kaay gi du source moom nee na li mu gis mooy coalition yeewi askan wi am nañu lu toll ci quatre-vingts députés bokk yaakaar am lu toll ci quatre-vingt-deux députés yéen a kaay gi di bés bi nee ak Pape Diop ak Thierno ñoo ngi annoncé recours ca diwaanu Kaolack ndax ñoom nee nañu ñoo gañe kaw yéen kaay gi di la Quotidien nee na Abdoulaye Wade am na 96 ans te jamono ji moo nekk maître du jeu maanaam Wade mooy buum di bu mee yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ci xalima Sambo nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ñàkkul ne am na mbetteel bu baax a baax ci résultat yi nga xam ne moo tukkee ci élection législative yi waaye nag li nga xam ne moom la ñu nemmee ko maanaam daal am njiitum réew ñi nga xam ne ko jege duñu ko faral di wax dëgg nag li nga xam ne moo xew ci réew mi na ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn maanaam xeeñ ñoon na sax sa mois de mars ba yéene kaay gi de libération nee na bu ñu waxantee dëgg Barthélémy Diaz jamono ji mooy patron Dakar yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na coalition Yewwi Askan Wi ginnaaw bi mu dóoree Benno Bokk Yaakaar kaawo ci élection yi jamono ji daf koo doggale Benno Bokk Yaakaar neexul ba neexul waaye ma nga si jafe-jafe yéene kaay gi di Walf Fadjri ak 24 heures nee na coalition Yewwi Askan Wi Wallu bi ñu dóoree Benno Bokk Yaakaar dóor yi xam ne moom la ñu génn jamono ji nag am yoo xam ne ñoo ngi bi fekk ñu sulliwaat dossier Adji Sarr yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien Karim Meïssa Wade doomu Abdoulaye Wade bi maanaam ma nga sa waaye nag wax na nee na jamono ji nañu résister woote na ab résistance moom Karim Wade nee na ma ngi doog di am ci histoire Sénégal ci histoire politique bu Sénégal président boo xam ne amoo majorité ca assemblée nationale victoire bi Karim Wade nee na victoire u askan wi la yéen a kaay gi di La Tribune xëy di ñu xibaar naan ñu premier conseil des ministres ginnaaw nag surprise bi nga xam ne am na ci élection législative yi yéen a kaay